organisation la ñu amul. organisation zéro. dafa bëri nit ñu baadoole ñoo xam ne. Ah, suñu jaay ah, dañuy ñëw léegi ñu bëgg a bëgg a. c'est vrai c'est vrai man sànq man sànq si kan laa ko doon expliqué sama kàddu gi. ma coppée dama woo dama woo ma ma réeré ko ma ne ko maa ngi fële fekk ne parce que dafay bañ mu ñëw fekk ñu taxaw ñu ñu dañoo quoi. loolu moo yàq ñun dañoo sérieux. am am sànq mu ne loolu moo tax ma réeré ko. ah ma ne gën naa ko ba su ma waxoon ni maa ngi koy ñëw. na ran comme ñëpp. voilà ñun fee lañ. gars yi wax leen ci commentaire ku ngeen di voter quoi. Diomaye Sonko wala wala a baax. PDF gars yi PDF da nga ko fàtte quoi ci kandaay la de. Abdour <laughs> ko moom moom ngay voter. man kam Anta Ba di fàtte sax. ndeysaan père père abandonné nga ñu de père suñu groupe bi ñoo ngi ne de suñu groupe bi ñoo ngi suñu groupe bàyyi de waa père dañoo abandonné <laughs> gisuma père père waa père <laughs> abandon ngeen ah gisoo gisoo waaye nee na moom buuxante quoi buuxante bi parce que waaw waaw waaw waaw dafa yéeme li la quoi foofu bi quoi c'est juste la waaw damay wàcc terrain bi doo gis football non mu ngi dox mu ngi dox je vais m'abonner mon frère ah d'accord Aya Nakamura aussi ah naa la follow back naa la naa abonné aussi ah abonné la aussi ah naa ko fàtte waaw damay TikTok damay TikTok si doole doole Sonko la bokk quoi waaw ah macha allah tur luy sa tur si kii TikTok ah ouais ah d'accord macha allah yaay wax leen ngeen voté si suuf يقول سونداز أجل سونداز سو سونداز بوكو كا كا جاي زوجة كا سابين فول بي بلي بفر بلي توسا توسا مغي من كزاي لكن لي مغي من مات مات مات لا سال li bëgg a xuloo moom ak ay naan ci la bu ñu réew ñu mel ni vraiment ñun dañoo bëri ñu naqari Sonko bàyyi Macky Sall voté Diomaye waaw ah, voté Diomaye rek mooy mooy voté vote bu am njëriñ bu voté leneen sa vote amul njëriñ sa vote amul njëriñ Diomaye kese allez nañ ci yéen de kontaan nañ ci yéen de <laughs> ba léegi dugagul ba léegi depuis six heures on est là depuis six heures ñu ngi ba léegi mën a dugg donc bu bëgg a voté rek changé na ful bu nekkaat fële na ful bu nekkaat ci biti lañ nekk nii maanaam rang foofu la commencé wiiri wiiri ci bâtiment bee da ngeen gis bu mag bële foofu la tourné ba ci ginnaaw fële fee may zoom nele foofu mu tourné waat Tema dufurluyor, ranfurlu furluyor. ranfurlu furluyor ko. Sama kaç jomay la koy jox. Wow. Jomay ma parole je viens avec ma chaise pliante. waaw Kofé waaw dafa loolu Charles en tout cas c'est chinois depuis ce matin on est là Pape Pape mu ngi lay ziar Pape Mbaye. naka woon ba lépp jàmm. sant bu wér alhamdulilah. yow si jàmm bu baax. waaw ñoo de sa waay de ful bi mu nekk sa waay. kenn mënu ko comprendre. amiin amiin amiin waaye yéen yéen a ngi si rek waaj bureau de vote yi dafa nekk ay bureau de vote yu bari ci biir mais bu dee ay benn gaar nii la nit waaw sama gis-gis salaamaaleykum maaleykum salaam siyaar naa leen hello siyaar patriote sa ya, liggéey ya. merci merci kontaan si yow bu baax waaw ah, di kontaan si rek focus rek waaw incha waaw incha allah dans dans pas longtemps incha allah ñu jubilé Sénégal Sénégal changé souffle souffle. bilaay loolu la. pour ñu pour ñu def ci commentaire bi bari na quoi. waxuma premier tour au euh, deuxième tour waaye premier tour lépp leer lépp leer. premier tour premier tour leer na. premier tour leer na. waaw ah, waaw. premier tour leer na. en tout cas ñun daal diaspora bi ñun on est prêt. on est là depuis six heures ñu ngi fii taxaw rang bi c'est des kilomètres maanaam bi gudd ñu gudd ko dalee fële dafa wër koñ yi la wër ba ba yegg si fii yegg si fii yëpp ci rang bi waaw yëpp dafee incha dañuy gañe lii yëpp ñun lu tax ñun ñuy voté Diomaye ak euh, projet bi pour Sénégal changer pour ñu mën a dund leneen gis tal leneen tal développement ta leneen mais di nekkati fi di manifester di xeex ak ñu ñuy rey ak yu demee noonu du ñu tëj ak yooyu. déedéet. moo tax nag ku ci nekk rek booy voté gote voté ak sa akulaay xool ci yàlla xool ci sénégalais seen souffrance. déedéet déedéet. waaw waaw. Tari. waaw waaw maa ngi dégg Alifa. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm barke yàlla. waaw yéen yéen amul leen amul seen fay aussi waaw gis na seen taxawaay aussi. xam nga lu tax. xam nga lu xam nga lu tax. waaw. ci diaspora ngeen ne bu leen neexoon ngeen ne yéen ñoo. la diaspora exactement. waaw kay mais defoo leen ko a maa ngi dégg waaw. ma a ñuy exactement xam ñun bu ñu neexoon fi wax noonu maanaam moo waxee foofu maanaam. mais bu ñu neexoon tey jii nii duñ koy xëy voté ji quoi parce que dañ naan quoi qu'on puisse dire du kese dañoo rëy ak wala mais Sénégal bu neexoon ñu jàpp suñu jaamu quoi. loolu loolu lii rek war na doy Sénégalais que xam ne lii ñun am na lu ñu gis quoi parce que ñun def nañ dëkk dëkk yoo xam nañ différence bi lan la xam nañ écart bi am du yoon xam nañ ñun ressources yi ñu am nii ñu am na foo xamante ne au minimum waroon nañ fa tool donc bu ñu demee ba toll fenn fi c' à cause des gens yoo xamante ne ñoom dañ fi nekk pour seen propre intérêt nekk fii euh, ak seen famille di lekk xaalisu senegal di def neex di pasar pasar rek yore di fowee alalu senegal loolu moo war a jeex yëpp di seen bopp ndaw yëpp am xëy bàyyi dugg ci gaal jaar Nicaragua ñu kenn xamul comprendre di ci ñàkk seen i bakkan ak yeneen ak yeneen loolu kese moo tax a jóg loolu kese moo ñor ci dara seen ci tous du poste du dara wala trois ans yi passé di si bay man man ku wax Amadou Ba day damaa yaakaar ne kooku amul xel quoi. loolu ñu dee ñëpp. ñu ñu si ñàkk seen alal. maa ngi lay